du pour foo du pour fecc mais c'est pour primer ñi nga xam ne ñoom ñoo raw ci classe yi ñooñu nag wax dëgg ca dañoo mérito lii nar a xew tey balaa loolu nag dañuy tàmbale par ñaan suñu kilifa mu ngi fii mooy Oustaz Ba ñu jox ko li nga xam mooy micro bi mu def ñaan ñu tàmbale lem mais ci biir ñaan bi ñu déglu ci biir ñaan bi ñetti collègues yi nga xam ne fii lañ nekkoon ak ñun te ñoom dañoo wàññeeku dañoo génn àdduna ñu ñaanalaa leen leen yéene leen muy ki nga xam ne moo nekkoon doyen de l'école muy madame Sané dafa dëddu muy lu tiis ki ci des mooy oustaz Mansour fii la nekkoon ak ñun dafa dëddu àdduna kii topp mooy Moussa ji mu nekkoon ak ñun mu dëddu àdduna muy lu tiis bu ñu sañoon nag tey ndeysaan dafay dafay fekkee mais dogal ñu ciy boole ki nga xam ne tamit aussi nekkoon son lol ci école bi mooy monsieur Mbodj monsieur Mbodj mu sonnoon lool yàlla def na mu dëdd kon kook ñu boole ko ci ñaan bi kon pour bañ guddal ñu jox oustaz Ba mu ñëw directement def ñaan bi ñu tàmbali suñu programme di julli ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii defoon nañ ko fi daaw yàlla may ñu fekkee ko tam yàlla ñu yàlla mooy ñu fekki ko ay déwéen déwéen mbooleem kuñ fi décoré yàlla ko yàlla dundal bu ñu décoré ko bu am xam-xam ñu décoré ko mu am place mu am njëriñu réew mi ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngal xeetam nañu wuti xam-xam kon nag saan siin ba siinum wut fa xam-xam kon nag xam-xam lu am solo la ci dund doomu aadama ndax jàngalekat yi nga xamante ni duñ jël xam-xam sol ko ci jaamu yàlla yi kenn mënu leen fay la siyama ñi nga xamante ni dañuy yar xale yarub islaam ñu jàngal leen xam-xamu islaam ñu jàngal leen xam-xamu àddina kenn mënu fay kon ñu fatiha bu ñu jàng salaatu ala nabi bu sell ñu yéenewaale suñu mbooleem aajo yàlla ko yàlla faj képp ku fi indaale aajo yàlla ko borom bi subhaanahu wa taala fajal aajoom képp ku tawatam yàlla ko yàlla saafara te may ko jàmm ak salaam ñoo ngi jublu ci tabaski bi séeréer yi lekkatuñu naanatuñu nelewatuñu ndax xar rek la ñu xalaat yalla yalla may ñepp xar yalla leen yalla yombal li ñu tabaski ndax instant bi couple yi ñoo ngi ci ñu tabaski yal yalla yàlla yombalal lepp kon dañuy def fatiha salatu ala nabi fasaale suñu mboolem aajo yalla ñu yalla musal ci chatak lamin ak rabak shaytan bismillah rabbana taqabbal minna innaka di nuyu di ziyaare délégation bi macha allah ah, mbir mi taalu na lool waaye avant loolu ñuy nuyu di ziyaare di am mbégte ak kontaante ci ñi nga xamante ne nii kat dafa mel ni mbir mi tay seen mbir la di ñaan suñu borom bi subxanahu wa suñu feet bi yàlla bu mu mujj yàlla bu mu doon suñu mujj feet. yàlla nañ ko teewee ay feeti fét ci barké sayidina muhammad sallallahu alayhi Wasallam. ah di dalal nak wa réserve de Bandia bég nañu dé ndax li ngeen ñu défal reyna na lool ci ñun di ñaan suñu borom ñaari classe yi ñu défal na dem ba doon ay immeuble yal nañu dem ba nga xamantene ne président de la république dina génné fi ci sen ñaari classe yi ngeen defar yalla mën na ko de te yalla nako suñu borom subhanahu wa taala def ñu ne nga la ma yeen ndax bu len neexoon buñ fa ñëwé di len ñaan dimbal ngeen tankam luñu wala sax bu ngeen ñëwé bu ngeen ko commencé du ngeen ko yégalé commencé ko rek dem seen yoon nga la ma ba ngeen ko démarré dem ngeen ba yégalé ko ba tay ji ngeen ñëw taxaw kat da ngeen ñu da ngeen ko fassiyéné ubi yaakaar naa la ci ñun. ñoo ngi leen di jaajëfal di ñaan suñu borom li ci des yal na barkeel yal na barkeel ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu loolu weesoo ñuy nuyu aussi di ziyaare ah suñu parrain bi ma Mamadou Diouf ñoo ngi lay nuyu di la ziyaare nee la nañu lool sax ndax kado yi na xale yi tey dañuy bég ndaxte lii moom gàcce ngalaama te dégg nañ tamit surprise bi nga ne suba xale yi nañ ñëw buntu kër ga yaakaar naa ne loolu tamit lu gën a neex la ñu lay ñaana rek yal na taxawaay bi yàgg yàlla nga dem ba ñuy daggal la ay biyey biyey biyey màkka ci barke seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ci des yàlla na barkeel waaye aussi tamit ñuy nuyu di ziare suñu enseignant yeeg suñu enseignante yi gàcce nga laa maa ñoom ak xale yi ndaxte am na nuñ doon demee xale yi duñ leen ñeme waaye ak ka xale yi ñeme leen boo génnee dangay dégg kenn ku ne la sama enseignant wala sama enseignante am na nu mu doon demee xale yi duñ ko def ndax xale moom day copier rek boo ko wanee lu baax da ciy ànd waaye boo ko wanee lu bon tamit da ciy maintenir waaye macha allah gis naa ni ñu taxawee ak élèves yi loolu tamit lu ama am solo la. waaye bu loolu weesoo tamit dañuy ñëw ci ndeyu mbilli gi ndax boo duggee ci école avant ngay dugg di nga am bunt boo fi am na néeg boo fay fekk yaakaar naa ne néeg boobu mooy néegu borom école bi mooy nag fay biram penda waagaan dugg dugg waagaan xaalis waagaan. waay ñi taa ci directeur fay waay ñi taa yow fay biram. ngay ci école bi bañ la dalalé dañ ñoo ñun wuñu abiri da nga né man abiri man bëgguma abiri de ñu ne la ah fay biram bir maa de bàyyee nañ la ko ndeysaan mu doon nga wax rek ba ñu naan mo sérel bi du fi def tus waaye gatché nga la ma yow ko wax ba paré jëfé ko jëfé ko ba mu mat sëkk tay gisatuñ fi abiri de wax leen élève bi gis nga mbiri gis ngeen fi sàkket lu ngeen fi gis ay classe yu rafet macha allah ñuy ñaan nag rek ñu gër ñoo dimbale gër ñoo jàppale li nga xamante ne yéene nañ ko suñu école bii yàlla ba suñu borom bi subhaanahu wa taala moo talil ñu ko ba nga xamante nii bu ñu jëlul pee ci ngeexoox yaakaar naa ne duñ des ginnaaw ñuy ñaan nag suñu examen yi tamit yal nañ yàlla may lu kawe suñu njott ci examen yi ngàcce ngaalaa maa jërë ngeen jëf dafa bokk suñu plan ñun dañu am plan d'action volontariste boo xamante ne chaque année moom la ñuy tëral

tudd seen tur ci seen kanamu parent seen kanamu morom vraiment bakk leen loolu loolu rek motivation la boo xamante ne day tax xale yi di jongante dans le bon sens jongante boobu nag la ñuy wut ñun dañ koo def ba même euh, le lycée, le collège, il y a toujours des primés chaque année ici. Les ressortissants de 3 qui font du bon travail au collège et au lycée sont toujours primés ici. Donc, lolo, du lo xamantene rek dañ ko vraiment jonganté bobu continuer ci ñom même buñ déké au collège et au lycée parce que dañu dans un monde de l'excellence seuls les meilleurs gagnent donc loolu moom mooy vraiment sensu fête bi annuellement. waaw tey moom tey moom tey daa allah daw mi comme ni ñu koy waxee vraiment on a un parrain boo xamante ne xeeb na lu mu def la wax mais ñun de wax dëgg yàlla dafa des li ñu def nii li ñu ñu jox. def nañ ay cadeaux bam dess donc wax deug yalla ça c'est pour te pour te le montrer. voilà voilà voilà donc c'est ça. Hein. maa ngi remercier nak en premier euh, directeur bi Mamadou Faye parce que Mamadou Faye bimu mu fi ñëwee ñaari classe rek la fi nekkoon mais bimu mu avec tout le travail avec qu'il a fait avec son staff motax ñu amat classe yépp te it ko def ak staffam bu bu moom dafay liggéeyul woon kon waa Bandia bii buñ ci taxaw mais dafa dem Bandia waxtaan ak ñoom waa Bandia it aussi motivé lii ñu yàgg koo def ñëw ci defan ci ñaari classe yi yokkal ñu ko te it xamoon nañ li amoon ci école bi parce que yi bari wuñu bari woon nañu xam ne pour ñu mën a du caser leen dafa bari dafa yombul woon kon déjà bu waa Bandia ñëwee defal ñu lii par l'aval du directeur ak son staff ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax man nag dama part dinaa wax leen lii ma def dama ko def parce que ci quartier bi samay jarbaat ñoo ak samay te je dis au directeur et son staff que être parrainé et ne pas être parrainé l'année prochaine ce sera plus inchallah votre chaîne Ngeko TV Ngeko TV c'est une chaîne télémédia bi leen gëna a pour vos reportages des émissions couverture médiatique vos publicités Ngeko TV indil na leen lu avec une équipe pétrie de talents médiatiques Niekor TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Niekor TV.